jërëjëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bi di wasaare nii lañ leen ko waxee tey ñu ñëw file ci tonto Aline ni ki nga xamante ni moom muy benn cas bi nga xam ne dafa ñàkk bakkanam te kenn gisul ay bokkam waaye gannaaw gi nga xamante ni ñëw nañu fi dañu fi daje ak ñoo xamante ni ñoom aussi dafa amoon seen benn mbokk boo xam ne dafa daal di ñàkkoon bakkanam te aussi ñu doon wër seen ay mbokk yàlla dogal ne seen i mbokkam yi ñoo nii moom nag dinañ ko nuyu daal di koy jaale aussi waaye tamit ñu laaj ko ay quelques euh, kaddu rek ci ki nga xamante ni moom moo fi bàyyeekoo soxna si ñu ngi lay nuyu. waa soxna si ñoo ngi lay fay ñoo ngi lay fay ñu ngi nuyu waasit bi yëpp muy wasaare ñu ngi leen di nuyu yéen yëpp ñu ngi nangu njaal bi bu baax. tur bi naka la. man Buuba Mbaay laa tudd. waaw. ki génn àdduna sa lan la. ki génn àdduna sama mag la. Maas Mbaay la tudd. waaw. ñaata at la am. Maas war na am ay cinquante ans ba cinquante deux ans. waa d'accord naka la rek la demee. waaw Mass nag dafa am benn feebar bu koy attaqué muy feebaru xel mais nekkul ak moom éternellement day nekk loo xam ni daf koy faral di dab ci ay liggéeyam mais nekkul ni feebar la boo xam ni dafa continuer rek nekk ak moom bi ko affaire bi di dal dafa jaay ji woon ci gàmmo bi. ci gàmmo bi. waaw gàmmo Kaolack bi mu jaay jee ba ñëw mu feebaree fa. bi mu fa feebaree mu ñëw fekk sama frère yi ñoom yëmbal lañ loose ñu ñëw kër ga buñ ñëwee fekku leen fa fekk boobu feebar na am seen benn dëkkaandoo bu leen o wax leen ko ñoom tamit ñu jënd ordonnance yi jox ko mu naan bi mu naanee mu tëdd nelaw ba ci deme bi mu tàggu ki ko jëndaloon garab yi ni ko damay dem jëli sama bagage yi dafa nekk aan waa ñun daal loolu nouvelle yooyu lan gëj a am ci moom ba bi bi ma gisee image yi nii dafa décédé waaw. d'accord wasaare nga gisee ñu dugal image bi mooy sur kii. waaw man nag image yi maa ngi ko gisee ci sama benn mag muy bintu ci moom laa ko gisee moom ma ko envoyé fekk te dama ko oowoon di ko expliquer cas bi moom tamit ni muy défilé TikTok ci la ko gisee après mu envoyé ma ko mu nekk lu tiis lu metti waaw. ndax moom jot na am jabar. waa am na jabar amoon na jabar am ak moom ñetti doom waaw. d'accord tey nag ndax yomb na ngeen eh, am mbokk boo xamante ne nii dañ leen a jékki rek ne leen kooku daal dinay génn àdduna image yaa ngi nii ndax yomb na ci yéen ay famille woom non loolu moom nekk na loo xam ne lu difficile la wax dëgg yàlla parce que man jour bi nu ma ko envoyé am naa yëg-yëg boo xam ne gëj naa ko am torop parce que moom sama mag la moo nekk sama taawu waaw nekk mag bu baax nag amul benn problème wax dëgg yàlla sama xol tooy torop jour bi ma lay o mm-hmm. yow gis nga ni kii di la o sax nekkul mm-hmm. waa mu nekk affaire bu tiis mais nag suñu borom bu soxlawee rek jaam ñàq ñun bi torop nag mm-hmm. ndax moom dafa bokk ñi ci ñi nga xamante ne ni ah, seeni mbokk yi dañu ñëwul ba ñu tontoo Aline ñu denc leen wala waaw parce que bi ma koy yëg ak bi ñu koy denc tamit un mois juste la am parce que le 18 le 18 la gaañu man le 18 laa ko yëg ci ver trois heures ci bëccëg bi ma ko yëgee ci laa leen contacter yow laa jot waa ñu jox ma numéro tonton Alioune ma jox ko sama frère bi mu oo ko waaw toujours su loolu rek la woon. Hmm. ndax feebar bi nga xamante ni moom la yoroon daf ko doon faral di sonal trop trop wala. waaw feebar bi moom doon na ko sonal doon na ko sonal wax dëgg yàlla bu ko dalee ñun ñëpp ñooy nekk si lii jaaxle. parce que lu ñuy wax rek ku kennu mbaar bu benn mbaar bu bant bu ko téyee saa yi bu rocceekoo rek njaboot gi dañuy am lu ñu yëg dëgg yàlla mu nekkoon suñu mag nekk suñu baay mm-hmm. bu ko dalee ñun ñëpp ñooy jaaxle mais nag am naa sama benn frère boo xam ne muy Cheikh Mbaye kooku daw ci woon dara fu nu ko mën a mës woowee ni ko mas feebar na ak dëkk bi lu mu sori sori mm-hmm. dina dem jëli ji magam mm-hmm. yóbbu hopital macha allah mu dem ba hôpital Fann Rafinel yi ñëpp ñoo ko xam. parce que foofu la doon jëree ay rendez-vous. rakkam ji nekk rakk boo xamante ni dawul woon dara ci magam. xanaa di ko ñaanal rek mbaay yéen bi oyof lool ci boppam. mas non moom nag daawul génn daf doon jaay moom ay Guinée la doon dem Casamance. payen saa yi foofu la ko feebar bi di attaqué mais mosul génn dem pour feebar. bu ñu ko jëlee dañu koy indi faj ko même pas 15 jours sax day dellusiwaat ak xelam. waaw mosu ko attaque attaqué boo xam ne daal daf ñuy jaaxal di dem affaire yooyu lii mi ngi doo ko am waaw. Mhm. d'accord yan kàddu seede nga ñu mën a jox ci seen mag jooju nga xamante ni tey moom moo fi bàyyee ko. waa kàddu seede yi nag mi ngi doon ni suñu mag la mais suñu mag bu baax la mën kaf bu ñëwee ndey saan man sama xarit la woon daf doon néew ba sama atelier. bu ñëwee toog ñu waxtaan mhm. mu ni ma jëndal ma lii jëndal ma lii ma jëndal ko mu nekk sama xarit mhm. wax dëgg yàlla sama mag boobu dama koy ñaanal mhm. àjjana nekk këram dama koy ñaanal àddunaam yàlla na fi coono coono yam si àddunaam fa mu jëm yàlla na fa noppalu ci barke seydinaa Mohamed jikko yi ma gën a marke ci moom mooy kenn du jëw ci kanamam soo jëwee ki nga xam ni moom nga jëw bu ñëwee dina fexe ba répéter même wax bi nga waxoon mm. bu kooku nee ko lan la mu ni ko waa kër gi dañoo ne woon nàngam wax dëgg yàlla mu nekk mag ju baax ma di koy ñaanal mbaay fi mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jóge ci barke maam Thierno Ibra Faty wasaare de lu ma leen di wax mooy liggéey bi rafet na ndax macha allah ni bu dul woon ak ñoom pour ñu retrouver suñu mag dina jafe torop parce que sama frère bi chaque jour daf doon dem di wëri jour bi ma koy annoncé xibaar bi mu ngi nekk marché bu bees chaque jour ak fi muy waree ji waaw kon moom tamit gàcce ngaa laama yéen tamit macha allah dañ leen di ñaanal site bi yàlla dem ba nekk ay télé télé ci barke maam Thierno Ibra Faty. jëf ñu ngi la koy jaale bu baax di la ma mosaw. ñu ngi nangu jaal bi bu wér merci beaucoup. bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Pathé Mbaye. Pathé Mbaye lan nga bokk ki nga xamante ni moom moo génn àddina. moom sama mag la ñoo bokk ndey waaw. d'accord baal ma fàttali ma turam. moom Mass Mbaye la waaw. ñaata la am. Euh, xam naa ay 47 ans yooyu am waaw. d'accord ndax mën nga ñu waxal ni nga di nga rek li nga xamante ni moo bi nga xam ne moo daal di dal ci seen kaw. waaw man de dama toog sama benn place bu ma ubbi temps yi ma fa toogee ma jékki-jékki sama grand bi envoyé ma benn benn benn vidéo quoi benn photo ni ma kii sama sama bu jigéen bi moo ma ko envoyé buuba mais dafa ndróog maas. après ma xool ko bi ma ko xoolee ni ko waa kii de maas la moom ñu ne ma ñu ma liir affaire bi ñu ne ma ma liir affaire bi ñu bind ci dafa gaañu yooyu noonu léegi ci laa la woowee maa la njëkk a woo yaakaar naa bi ma la woowee nga na mais xamuñu woon ay mbokkam mais dem leen Madeleine Senghor ba xam euh, di ngeen ci am ay renseignement waaw. ndax moom dafa amoon feebar wala dafa amoon problème wala. waaw moom nag euh, depuis 2006 mooy temps yi ja temps yi jawbe di gën a dox la daan dem jawbe di ñëw. waaw di dem di ñëw di dem foofu di jënd bagage di ñëw di ko jaay ak yooyu wala muy jënd fi bagage di fa yóbbu yàlla defoon nag euh, ñu ag ñu agressé ñu agressé leen woon benn set place bu ñu duggoon am ñun ci ray moom tamit ñu dóor ko ci dóor yi métti ay jaas yi ci lay jëlee foofu la jëlee feebar bi nag depuis 2006 léegi nag euh, chaque année rek su su année bi ñëwee day xelam day ëlbatiku xam nga ñu jël yóbbu yi dem mbaaw faj ba mu wér mu commencé waat liggéeyam. mais nag euh, feebar bi ay ay ay un mois la ko daan jàpp rek waa ay un la ko daan jàpp suñ ko jëlee yóbbu ko faj ko après mu nekkaat si jaamam commencé liggéeyaat waaw mais da daan feebaree fu ne nag ay Guinée Bissau ñu koy jëli feebar nag Guinée Bissau lu mat 4 wala 5 fois ay fuuta fu nekk fu nekk jëlee nañ ko fa waaw mais fu ci feebar la yàlla day def sama mag bi da ko daan bindal numéro am suy dem dugalu ko ko ci poose ak yooyu noonu ay ay cinq diboro lañ ko daan bindal xëy na bii xëy na peut-être nii la ko yàlla tuddee mais bi muy dem sax bindal nañ ko ay numéro mais bi ko affaire daanee léegi dafa sumi dafa sumi yére bi lañ wax quoi waa léegi looloo tax mu mu mu numéro yi euh, topp ko waaw loolu daal la demee. Hmm. d'accord ndax mooy seen taaw wala. waaw moom mooy sama taaw yaay waaw waaw. d'accord ndax mbir bu mel nii bi muy am bi mu koy dal dal ngeen ko yóbbu ci maanaam ñi nga xamante ni ñoo am xam-xam bu ñuul bi wala. waaw non kii kay kii kay faj nan ko fu ne faj nan ko yóbbu façon sëriñ bu nekk sama yaay dem na fa fu nekk fu nekk dem nañ fa mais nag euh, hôpital ñoo ko gënoon comme refinerie de Mbao tey soo fa demee xam nañ ko bu baax su xasee sama mag bi bi mu koy seet dem na fa ñu ne ko bi mu fi jógee matut 4 jours waaw bi mu fa demee di ko seet ñu ne ko moo fi wàcc ñaari mbuus am na ñaari bagage am yoo xam ni ay bagage am la def ba tay mi ngi fa xam naa war nañ ko jëli sax incha allah waaw. yéen kañ ngeen ko gëj a gis à part photo bi ngeen ci gis ñi ñu taal di leen koy tàgg. waaw ñun euh, ñoo nekk na woon Kaolack ci gàmm gi bi gàmm gi biñ gàmmoo noonu ba gàmm waaw biñ gàmmoo ba gàmmuwaat après man ak sama mag bi ci lañ demee Gàmbi ci léegi ci lañ ko yow demal dakaar wuti bagaas ñun ñu dem Gàmbi léegi ñun ñu dem Gàmbi biñ demee Gàmbi moom mu dem Dakar après suñ benn kuñ bokkal kër gaayaan bu baax sax koo xam ni da ci daan sonn ndeysaan suñ fa nekkut moom moo ko gis jam ñaajo mu mu mu nee na mu mel melkaan bu doy waar nee na mu ñëm ko naxtaan maas ñu dem mais après mu ne noonu déw ma dafa am fu may dem fi am mu bañ léegi nag ci la ñu woowee ñun wax ñu ko bi ñu ko waxee ci suba gi ci lañ ci lañ tourné bi ñu ñëwee sama grand bi moom moo wàcc jam ñaajo man ma continuer yëmbal quoi moom wër ko wër ko foofu ñëw ba jam ñaajo bari ñi wër ko ba ñëw ba faas mbaaw gisu ko après chaque jour rek dañuy xëy di liggéeyaale xam nga ñu ne ay maçon ambulant lañ di ko wëraale quoi di ko wëraale mais yàlla def na wër nañ ba sonn gisuñu ko benn instant nag am na ku mu gisoon tëngeej suñ benn mbokk mu ne ko maas gis naa ko fii ba jox ko paas ni ko ni ko jugal ko tataa ni ko demal yëmbal waaw xam naa nag bi mu demee yëmbal ci la jàll ko tey aan ndax boobu yaa naa la 17 bi la xaw ma la 15 bi yaa naa ca suba sa la sa suba sa la gaañu daal waaw léegi kon gisu leen kooram ndax da ngeen di ñëw fekk ñi nga xamante ni moo di waa hôpital bi dañ di ne koy denc ndax dañ doon pañ mu yàqu aussi ci li nga xamante ni moo foofu lañ ko bàyyi waaw loolu tamit dëgg la euh, dañoo ñëw fekk fekk fekk mu fekk mu fekk ñu jënd ko mais nag loolu euh, dañ ciy wax lu ndaw rek muy pour man Sénégal ak ni mu mel ak ni mu toll euh, nit su fi ñàkkee bakkanam pour man war nañ koo mën a téye benn trois mois wala 4 mois ba pare wër ko tey suñ télé yi nii nga xam ni lu amul solo rek la teg tey war nañoo may benn même bu dee une ñu ciy jàllale ñi nga xam ne dañoo faatu tey te xamu ci seen bokk xamu ñeen waruñu xool na neen nuñ ko organiser bu fekkee loolu tamit euh, mënta nekk ñu xool na neen nuñ ko organiser di ko dugal ci réseaux sociaux yi ba nga xam ne di ko jox ci site yu mag yi comme niñ ko dugalee ci wasaare TV ñu gis ko ñu koy dugal ci site yëpp pour man loolu euh, war nañ koo gën a waaw parce que tamit xam nga euh, benn site moo ko dugal dugal ko YouTube après ñu gis ko TikTok xam nga mënoon nañ koo gën a médiatiser ba nga xam ne dañ dañ ciy gaaw a jot daal waaw mais nag xëy na noonu la ko suñu borom tuddee suñu borom moom lépp lu mu dund lépp lu ci sa dund rek noonu lay demee incha du échec ndax moom jot na jot am soxna ak ay doom wala. waaw moom amoon na soxna euh, am ñetti doom. waaw am na doom mhm. waaw. d'accord yan kàddu rek nga ñu mën a jox ci moom waaw man moom li may seede ci moom rek mooy euh, moom mooy sama taaw yaay man maay sama caatu yaay euh, mu nekkoon sama xarit nag sama xarit la woon xam nga doon ku baax nag wax dëgg yàlla mhm. koo xam ni nit koo xam ni ñun moo ñu jàng liggéey parce que. tey soo demoon fi ma dëkk ñii dañoo am jom ngay dégg am jom boobu nag euh, ñu may gagné fépp di ma ko waxee fu nekk moom moo ko def ci man parce que bi may def euh, CM2 non bi may def c la ma jël yóbbu ma Gambie bi ma demee Gambie su ma masaan di jaay di encaissé xaalis dañ ma daan seetaan ndax maanaam euh, ni ma toll xa xale bu ndaw xam nga nit ñi yéew ma naan kii nan la mayee maîtriser lii kon xam nga um, lépp luy liggéey rek moo ko def ci ñun waaw kon daal. waaw waa jikkoom moom mooy tey man naa ñëw kër ga uh, xuloo xuloog yow léegi nga mer mu dem ñëw neexalaat la léegi moom xolam dara nekku ci waaw dañ daan xuloo day daan ñëw xuloo kenn kër ga mais moom moo lay njëkk tudd te du tongoo waaw mosuma koo gis mu tongook nit kër ga waaw waaw d'accord gannaaw bi ngeen yégee xibaar bi ñu daal di leen jékki-jékki rek daal di leen envoyé ay vidéo ne leen seen mbokk bi daal seen taaw bi daal dina génn àdduna naka rek ngeen ko dundee yéen famille biñ ñu ko waxee lu metti la wax dëgg yàlla metti na trop mais nag euh, dañuy gëm yàlla rek te xam ni suñ borom moo ko bind moo ñu ko joxoon te moo ko jëlaat waaw ñu sant ci yàlla bu baax a baax di ko di ko ñaanal rek comme que instant bi daal ñaan rek lañ di sàqu nag na ko ñëpp ñaanal muy maas Mbaye di nekkoon koo xam ne jullit la waaw nit ku baax la woon nit ku nit ku nit ku fonkoon ay ay njabootam la tamit waaw koo xam ni daraan liggéey ba am alal ñëw kër ga su ñëwee du xool maanaam su ñëwee man sama soxna rek su masaan a ñëw ñoom maam su ma maam su fa masaan nekk mën naa ni mooy defal lépp sama soxna di ko tooñ xam nga nekkoon nit koo xam ni farceur la ko waaw di tooñ sama soxna di ko may ay 1000 francs ay 2000 genre yooyu maanaam mu doon nit ku baax daal waaw xaalitam ana maire bi naka la koy dundee jamono ji ndax yomb na ci côté waaw maire bi moom moom moom bi mu ko yëgee moom wax dëgg yàlla metti woon na ci côté lool waaw mais nag euh, sant yàlla rek xam nga dafa ànd ak gëm yàlla donte nag metti woon na waaw jooy na ko mais nag euh, dafay ànd ak gëm yàlla rek ndax suñu borom moo ko joxoon moo ko jëlaat waaw. d'accord jërëjëf ñu ngi la koy jaale bu baax a baax di la mosaw aussi. baax na jërëjëf yéen tamit ñu ngi leen di sant bu baax ndax yéen wax dëgg yàlla su dul woon ak yéen man mënoon nañ ko bañ a gis ndax ci seen site bi euh, lañ ko gisee kon ñi ngi ñaan Euh, sénégalais yëpp nañ abonné ci Wassare bi ndax ku nekk tey man nga am mbokk boo xam ni tey euh, comme ni suñ mbokk bi ni mu def noonu lay def kon tey abonné ci site bi nga xam ni mooy wër di def yu mel noonu di ko publier kon na ñëpp abonné ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk internet yi comme ni ngeen ko gisee tey ñu daj ak famille ki nga xamante ni moo di Mass mbay ci hôpital bi moom aussi mu nekkoon koo xamante ni dafa daal di génn àdduna te kenn xamutoon ay mbokkam ñu dugaloon li nga xamante ni moo di vidéo bi gannaaw ba ñu seet seetanto Aline waxtaan ci ak moom ay mbokkam nag daal di gis li xamante ni moo di vidéo bi ci wasaare gaa yombul ci ñoom ndax metti na lool lool tey ki nga xamante ni sa mbokk la nga daal di xëy rek benn bés daal di gis benn vidéo ñu ne da kooku daal dinay génn àdduna dégg ngeen ñoom ay mbokkam li nga xamante ne jot nañu ko joxe ci ay leeral waaye kàddu seede yi nga xamante ne jot nañu ko joxe ci seen taawu kër googu doon wuyoo ci turu Mass Mbaye daal di génn àdduna amoon na soxna daal di fi bàyyi ñetti bant ñu ñaanal ko yàlla yërëm ko xare ko aljanay firdawsi fa mu jëm gënal ko fi nga xamante ni la jóge waaye di mosaw ay mbokkam di leen ñaanal aussi ñoom tamit yàlla may leen xolu waaye tamit eh, internet yi nga xamante ñooy faral eh, a a bu duggee rek ñi nga xamante ni dañ fi nekk seen mbokk yi di ñëw di leen jël si di ñëw di leen ñaanal si ndax ni ma koy waxee képp koo xamante ni da génn àdduna rek li ngay sàkk mooy ñu jullee la ñaanal la jébal la ci sa kër gu mujj ko ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal al amin sama caméraman bi di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah ak yeneen actualité ak si semaine taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke bu mag bi jaajëf